maanaam diine amu ci soxla xaw ma naka la diine di ñàkkee soxla ci juddub yonent bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam ba pare ñuy màggal sunu judduy bopp yi màggal sunu judduy réew bi ñu amee independent ba pare ne du nu màggal juddub yonent bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nga xam ne képp ku nuy màggal te fekk la tax ñu di la màggal diine tax la tax nga am loola mooy màggal ko moom mustafa sopp ko màggal ko loolu moo tax nga am dayo boobu nga xam ne seeni borom ba àddina tukki dañ fiy des donte nga xam ne deewuñu ci jihar yi ñu yi ñu xam li ñuy firé jihar ki tiye jaaseem dajeeg non xex ba dee ca wala taxsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun nga xam ne firi mi ci gëna jegeñ moy ñi daan téye jaasi di dajeeg ñi ñu bokkalul diine xex ba dee ca ñooñu la sunu borom wax ne deewuñu ñu ngi dund waaw waaye nit ñi nga xam ne dañ doon jihaat ci yonent bi dañ doon jihaat ci yàlla ci beneen anam mooy ñi alquran di wax ne walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa almuxsinin ñooñu ñoom ñoo fiy des ba faw ñooñu duñu jeex waaw ñële sax dana ñuy jeex dana ñuy dee fa yàlla seen dayoo nga fa mu des fa dañ doon xeexal lislaam ba dee ci waaye mënees na leen a fàtte waaye ñi nga xam ne dañ doon def jihaadu nafs te jaarale ko ci buntu sang bi di Moustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e ñooñu ñoom duñu fi mos a jóg ñoom waaw ñooñu suñu fi jógee it eh, ci seen jëmm ba àddina tukki dañ fi des moo tax fu ñu leen tuddee rek ñu fottasu summi mbaxana summi dàll am nay sant yoo xam ne tey suñu leen eh, tuddee rek eh, ndem jullit nga te xam seen dayo soo ko déggee rek yëg inshiraax mooy sa dënn bi ubbeeku gu mu ubbeeku mbégte moo am cofeel goo am ci kooku ci saa si sa xol bi màggal ko mu feñ ci sa suluk si feñ ci sa jëf feñ ci sa yëngatu su misa mbaxana su misa dal wala nga fotasu ta sax gisuloko waaw gisuloko sax man na amne sax gisoko ko gis waaw waaye danañu fi dess ba faw waaw waaw alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladi anqada dahrak ورفعنا لك ذكرك يا رفع الذكر يلا مو كوي ديف يلا مو يجل نيت اه، يكتيكو تدوتول دانو لاكو ورال موي فم تولو وون بوروم تا فغاي تولو سا منو تا ام لدور رنجا جارتي رك جار تي صلى الله عليه وسلم ممرك رك اه، جاب تيتي pour yóbbu la ila janabaati rabbik yóbbu la ci sa pegg borom ba sa borom mën la jox cër boobu mu mel ni bon a ah, lu waay góor góorgóorlu góorgóorlu ne dafay dem ci boromam pour am njëri am ngërëmam wala jegeñ boromam eh, mënoo jaar fenn dem lu dul ci buntam Moustapha kooku nag kooku du niti ordinaire de waaw wax dëgg yàlla xanaa kay diine la nu yeb waaye eh, sunu doxini jamono de yabuñu ko waaw suñ ne kilifa diw sàngam kenn mënu ko gis kenn mënta dem ci moom lu dul diw moo la yóbbu diw mooma du tuuti de waaw diw moomu du mos tuuti waaw forcé ñu fonk ko forcé ñu yëkkati ko waaw suñu ne la eh, yàlla kenn mënta dem ci moom lu dul nga jaar ci sang bi Moustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kooku nekk nag ordinaire ci dundam ak deexam waaw léegoo léeg sax nga gis e, ñu ko gisee ne jeexal na waaye loolu e, ñàkk a xam moo ko waral ndax jëmmi sang bi Moustapha sallallahu alayhi wa e, dafa jaxasoo waaw moom basharun yuuxa loolu moo def ci moom melo woo xam ne du niti ordinaire waaw ñun ñëpp bachar waaw basharun aadiyin ay mbindeef lanu waaye ordinaire lanu yàlla yootalunu yàlla jëlul sunuy deret fonkal ko boppam sellalal ko boppam balaaw ñu judd la ko dalee ca maam ya ba tey waaw yàlla yootalu ci kenn kon lu nu baax baax baax e ordinaire lanu waaye kii nga xam ne nag sunu borom subhanahu wa daf ko yootal tànnal ko boppam eh, waxuma tànn gi rekk waaye mu tànn ko ci ñi mu tànn ba pare jàllar bi kooti ne képp ku bëgg jëm si ci man soo bëggee ak si jaaral ci moom soo jaarut ci moom doo agsi ma ne kooku du nitu ordinaire waaw loolu moo tax alquran moo nu ko wax mu ne ñu wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana te mu ngi wax ak ñi ñi sóobu ci yoon wi jëm si ci moom waaw waxut ñi soobuwul ci yoon wi déedéet waaye ñi soobu ci yoon wi jëm si ci yàlla mu ne ku ci bëgg ak agsi ne toppal rekk eh, jeegooy sang bi Mustafa sallallahu alihi wa sallam te nag soo ko waxoon tey ñu ne la waaw topp jéegoy sang bi mooy ñu yombal ko lool daal waaw topp sang bi day topp yonent bi mooy topp sunnaam si waaw mooy topp sunnaam mu mel ni lu ordinaire te déedéet lu diis la sunna su Moustapha si mënoo koo topp te xamoo ko te soppuloo ko mukk mënoo topp sunna mukk te soppuloo Moustapha te Moustapha it mënuloo ko sopp mukk walla mënuloo ko sopp mukk te xamuloo ko waaw nga jàng Moustapha xam ko soo ko xamee force nga sopp ko soo ko soppee forcé nga topp ko mu mel ni ku koy topp ku ne da ko sopp ku ko sopp ku ne dang ko xam ku ko xam ku ne da nga ko jàng waaw kooku mooy Moustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw eh, te nag mënuta am loolu borom woy wa wax na ko taasil ilaha wa anta tudhiru xubbahu hada la amri fi lqiyaasi badiicu mu ne ndax law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu ndax inna al muhiba li man yuhibu mutiicu ñun li ñu xam sunu diggante ñu nu neen mooy nit ku ne soo xëyee li nga gën a sopp ngay uti waaw kon mënuma dégg nga topp dara te bëgguloo koo jot ku topp mbir mu ne da nga ko bëgg a jot su fekkee ne ci toppin bii la cofeel dong ci lañuy ñuy toppee topp ngir ragal ak topp ngir cofeel bokkuñu déedéet loolu fi la niti yàlla yi di rawantee fi la nit ñi di rawantee da gis koo xam ne dafay topp yàlla ngir xemem la ca loxol yàlla sunna la de dagan na baax na alladina yad'uuna diine la waaw kenn weddiwu ko waaye am na leneen lu ko gën a kowe mooy ñu dem a dem ba nga xam ne lu ñuy tuddee ragal loolu dafa jeex ci yow cofeel ci nga ci nga suux ba nga xam ne sopp moo la tax di def waaw boobu na beneen daraja la loolu mooy xalaawatul iman fekk àgguloo ci xamuloo imaan lu ñuy tuddee ngëm yàlla lan la saf waaw ah yàlla su fekkee moonu wax mboolem nit ñi ne ko wa ma arsalnaaka illa kaffatan lil alamin beneen bi mu ne rahmatan lil alamin képp ku mu mos di yónni moom yàlla daf laa utal geographical benn mu yónni la ci geographical location maanaam place boo xam ne dañ naan la fii la tàmbale fii la yem wala mu yónni la ci aw nit xeet woo xam ne fii la tàmbali fii la yem ba mu des Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moom dong la yónni ne ko baxuma kenn mboolem kuy dund yónnentam nga waaye li tax ma yónni la nag mooy anta arrahmatul muhdaad